mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo Rewmi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi seen émission gox bi ci dibéer gi di dalal Ndari Aidara di candidat à la mairie de Yeumbeul Nord te Daouda Ndiaye jiite ko ponk yi ñu war a waxtaanee bëri na rawatina jafe-jafe yi askan mbay yeewoo ci yëmbal yi ñuy jànkonteel naka noonu ban programme la amee ngir indi saafara ci jafe-jafe yi ci élection locale yi ci weeru janvier atum 2022 ki fare ci kàddu gi Mass ci xarale gi aadama Diallo ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm seen émission gox bi ci rajo réew Rewmi FM 97.5 Ndari dara ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum euh, waa Rewmi FM. Mhm. ñu ngi leen di nuyu mhm. vraiment di leen ziar. Mhm. di am kontante bu baax tey dalal bi nga xamee ne moom ngeen ñu dalal tey. fii ci réew mi FM. ñu fas yéene ànd ak yéen waxtaan actualité politique. Mhm. rawatina nag election locale. Mhm. Euh, yu deux mille yu janvier deux mille deux mille vingt trois dañ koy amalee fii ci Sénégal. Mhm. rawatina nag ci yëmbal noor. Mhm. mu jugee. junj nga ko say kàddu mi élection locale yi ci weeru janvier atum deux mille vingt deux dinañ ko waxtaanee ci biir émission gox bi laata loolu comme à l'accoutumée niñ koy tàmmee di def ci émission bi dañ lay bàyyi nga présenter yëmbal noor fan la nekk ci Ndakaaru. waaw avant tout damay présenter wu Nderi dara nekk président section LDR Yeesal. yëmbal Nord. Mhm. donc euh, teewal parti bi ci ci yëmbal Nord. Mhm. di wax ne yëmbal Nord mi ngi nekk dans le département de Kër Massar. Mhm. parce que ñu ñëpp xam nañ ne ci jamono yële passé. génn nañ ci département de Pikine. léegi département Kër Massar moom la ñu wuyoo. yëmbal Nord nag vraiment nekk dëkk boo xamee ne. taxawaayam ci Sénégal sax laay wax. parce tey fépp foo taxaw ci Sénégal. boo nee yëmbal xam nañ yëmbal. Mhm. kon tey ñun yëmbal Nord suñu taxawaay ci département de Kër Massar bu bees bi. Mhm. taxawaay bu am solo la fa. Mhm. yëmbal Nord am. ci wàllu population maanaam ñaata ñoo fa yeewoo. waaw ñi nga xamee ne ñi ngi yeewoo ci yëmbal Nord. ñi ngi toll ci deux cent cinquante mille habitants. waaw tey mën nañu wax ne yëmbal Nord bokk na ci commune yi nga xamee ne tey euh, bëri nañ macha allah car macha allah ci département de Kër Massar rawatina nag. ci ci Sénégal. Mhm. waaw euh, junj nga ko ci say kàddu bëri na lool ba tax na yëmbal nag seetlu nañ ni ab localité bi nga xam ne bëri na ay jafe-jafe est-ce que par exemple mën nga ñu exposer yan jafe-jafe la population bu yëmbal di jën di jànkonteel. waaw jafe yi bëri na. Mhm. naam mënuñu tudd lépp waaye comme lu comme yenn jafe-jafe yi nga xamee ne moo am ci Sénégal. Mhm. bëri na jafe-jafe yi nga xamee ne moo am ci yëmbal. bu ñu waxee yëmbal nord inondation la wax. donc inondation ñun ñëpp xam nañ ne yëmbal noor bëri na ay zone yi nga xamee ne tey. Mhm. Euh, ndox mi daf ko nangu. Mhm. xëy na ñi nga xamee ne am nañ moyen. Mhm. génn nañ dem dëkki feneen waaye ñi nga xamee ne nag doomu dëkk bi lañ. fa lañ nekk ba tey. donc kon ñu ngi dund ak ndox mi. donc problème assainissement tamit am nañ ko. laata loolu ci wàllu inondation bi gis nañ ni population bu yëmbal at bu ne dañuy jànkoonteel li ni mel bu fekkee ni sax état bu Sénégal teg na ay politique ngir indi saafara affaire bi dafa mel ni comme un vieux serpent de mer foofee ca yëmbal. waaw je pense que problème inondation bi nga tudd léegi dafa nekk euh, problème boo xamee ne du tey. Mhm. parce que euh, ci jamonoy Abdoulaye Wade la. Mhm. ñëw ba ci président Macky Sall. Mhm. mu nekk nag def ay canalisation mhm. naam chaque année heure bu taw jotee mhm. zone yi nga xamee ne dafay am ndox dañuy indi ay oto ay oto di manque di mhm. yóbbu waaye ñu gis ne loolu dëgg la état mi ngi def ay ay jéego waaye tamit problème yëmbal noor pour ndox mi mën fa jógee foog ñu def ay canalisation un peu partout dans les rues donc kon ñu gis ne aussi tamit état war nañu mën a ñëw taxaw jàppale ñu. Mhm. naam compétence su état la waaye aussi mairie aussi. Mhm. am na ci wàll. Mhm. parce que tey aussi tamit boo xoolee ñaxtu yu bëri yi ñëpp dañuy joxoon baaraam tuuma. la mairie. ba tax na tey tamit mairie bi tamit war na mën a am taxawaay boo xamee ne da koy am. ba bu ëllëgee aussi tamit ñu mën a saafara loolu. kon vraiment dafa nekk loo xamee ne wax dëgg yàlla yëmbal noor. heure bu nawet jotee. ñun ñoo koy dund. mu mhm. nekk nag loo xamee ne nag lu metti la. Euh, di ñu ko say kàddu lii di inondation loolu du compétence bu mairie par exemple ka fa jiite bu gox ba di da Ndiaye moom yan jéego la ci def. waaw bon ki nga xamee ne moo fa nekk euh, mooy profiter occasion di ko nuyu aussi muy sama frère aussi. Mhm. comme nu comme ñeneen ñi nga xamee ne dañ nekk ci langue politique bi. Mhm. nekk foofu au niveau de Yeumbeul Nord. Mhm. jéego yi nga xamee ne mi ngi koy def aussi. mu ngi koy def waaye tamit dañ gis ne doyul aussi. pa que ñu ngi gis ne heure bu taataa amee. am xamee ne ñu ngi dugg ci tali yi mhm. ñu ngi dugg ci mbedd yi mhm. di ngàcc waaye aussi ba léegi aussi tamit ñu gis ne aussi tamit mhm. taxawaay bi nga xamee ne da ko am jëm ci wàllum inondation dafa des yëmbal parce que tout le temps nit ñaa ngi ñaxtu tout le euh, temps lu tax par exemple nga ni taxawaay bi dafa des waaw lu tax ma ne taxawaay bi dafa des parce que population bay wax parce que man ñëwuma fi pour fustiger li nga xamee ne bilan am surtout lu jëm ci côté inondation waaye aussi tamit population bi bu ñu te ngay gis aussi tamit li nga xame ne moo fa am. gis nañ par exemple dañ koy jox xar bi baaraamu tuuma ni taxawaay bi mu fa war a am dafa des lool ndax euh, ñu ni sax euh, par exemple du fa yeewoo ba tax na yenn jafe-jafe yi moom du si mën a indi ay solution est-ce que am la. waaw bon li nga wax nit ñaa koy wax. nit ñaa ngi koy mhm. ne du ma lu bëri. Mhm. waaye aussi tamit damay di déglu. Mhm. mais aussi population bi aussi bu ñu taxawee di fustiger. li nga xamee ne moo fa am di ay euh, ñaawteef. wala li nga xamee ne tamit ñoom dañuy sentir ne. Mhm. taxawaayam dafa des ci population bi tamit da nga koy mën nga ko gëm. Mhm. mais aussi ñun li nga xamee ne moom moo ñu wax aussi en tant que ay politique. parce mhm. que ëllëg aussi dañu bëgg aussi. diriger la commune. xëy na ci faa yooyu la ñuy mën a gis ba bu ëllëgee ñu mën ko éviter. mais en tant que acteur politique jaadu na ngay alerter. waaw dañuy alerter parce que tamit yamuñu rek ci wax. yamuñu rek xëy na peut-être ci. sànni xeer ak yooyu. Mhm. mais quand même alerte bi mooy ñoom la ñuy joxoon joxoon baaraam mhm. directement. Mhm. wax leen jafe-jafe yi nga xamee ne moo am. ci suñu dëkk. nañ ci taxaw. parce que bu dul dara tey état ñoom lañ fi teg. kon tey lépp loo xamee ne dafa am. ci li nga xamee ne aussi tamit nekkul loo xamee ne euh, waa yëmbal aussi tamit euh, rafetlu nañ ko. donc ñoom la ñuy njëkk taxaw wax ak ñoom. joxoñ leen baaraam donc kon man du tey rek xëy na peut-être laa nekk ci rajo di wax. Mhm. waaye yàgg naa tamit taxaw di wax aussi tamit ñi nga xamee ne ñoo nekk. yàlla jox leen ndombal tànk. Mhm. yëmbal noor ñu bàyyi askan bi ñu bàyyi xel askan bi bu ah. baax. Aude ci wàllu inondation bi ba tey gis nañ ni lancé nañ plan Orsec bi pour trouver une solution définitive euh, est-ce que par exemple plan Orsec bi am na ay jeexintal te bañ ko lancé boobu ba léegi ci yëmbal. waa je pense que euh, ñi nga xamee ne ñoo fa nekk. Mhm. nekkal fa état. Mhm. en commençant par le sous-préfet. ñi ci am taxawaay bu am solo. parce que bëri vraiment en tant que acteur de développement. Mhm. acteur politique aussi parce que mhm. tamit man aussi xëy na peut-être euh, politique la ñuy wax waaye aussi nit ñi ràññee nañ ma ci wàllum. Mhm. développement. bon bëri na nag vraiment ay bis yoo xamee ne man ak ñoom ñi ngi nekk ci terrain bi. vraiment di assister. di jàppale aussi ci ay euh, camion ci ay moto pompe. askan bi nga xamee ne tey ñoom ñoo loru. ci ndox mi. donc kon plan Orsec bu ñu wax xëy na dañuy gën a lancer waat un appel rek à di wax ne aussi tamit. liggéey bi nga xamee ne moom la autorités yi nekk foofu di def aussi tamit dafa des. Mhm. parce que tamit tey plan Orsec bu ñu ko lancé. Mhm. yàgg na ay at la waaye ba léegi aussi tamit gisuñu tamit vraiment loo xamee ne tamit lu concret la loo xamee ne dañuy naan xëy na solution définitive. Mhm. am nañ ko ci wàllum. inondation mhm. kon plan ORSEC buñ mujjee lancé fan yii rek ndax mbënn mi nu sonale sonalee gox yi fasanti ko environnement bi foofu muy Kër Massar yëmbal ba léegi kon amagul benn résultat yuñ mën a jag euh, teg baaraam. non mu ngi am résultat. Hmm. mi ngi am résultat parce que. Kër Massar mais si say par exemple sànq li nga wax dafa mel ni amul résultat. non mi ngi am résultat parce que tamit mënuma taxaw ne. amul benn benn benn benn benn avancement. Mhm. wala amul benn résultat boo xamee ne. Mhm. am na ko mais tamit dañu gis ne aussi tamit dafa des. Mhm. parce que comme ni ma la ko waxee sànq am na ay zones yoo xamee ne ba léegi ba nii may wax ak yow. ñu ngi dund ci ndox mi. kon damay naan ñi nga xamee ne ñu ngi dund ci ndox mi. ñoom gisaguñu vraiment résultat bi nga xamee ne ci wàllu plan ORSEC bi. résultat. am na ko. Mhm. moo ne de lancé nañ ko de. lancé nañ ko dëgg la la c'est vrai comme ni nga ko waxee lancé nañ ko depuis ay mois. Mhm. waaye de yëmbal noor de lu ci mel ne zone 44. Mhm. dama koy wax tey zone 44 mi ngi nekk benn braak ci suuf. ci côté bassin bi mais imaginez dëkkuwaay. ñi nga xamee ne juste ñu ngi ci côté bassin bi juste. ñoom tey boo xoolee ñoo gën a loru tey ci inondation bi nga xamee ne donc kon man damay naan. mënoo nekk à à à à vingt mètres. Mhm. à vingt fi nga xamee ne cana canalisation bi. Mhm. foofu lay jaar. ba pare seeni kër yi. mujj mhm. wëlbatiku fees dell ak ay ndox. donc kon damay naan aussi tamit ñoom ñi nga xamee ne ñoo nekkee ci zone boobu. vraiment autorités yi war nañu wàcc. côté yooyu xool leen ci dëkkin bi nga xamee ne moom la ñu. moom la ñu dëkkee. Euh, laataa ñoo ñëw ci wàllu canalisation bi ak assainissement bi en tant que acteur politique da ngay yootu mairie bu yëmbal noor yow par exemple yan jéego nga ci def ci inondation waaw jéego yu ñu ci def mooy ak li nga xamee ne moom lañu am. Mhm. Euh, dugg nañ ci nit ñi. Mhm. benn ñu masawu leen. Mhm. parce que tamit tey ñëpp dañ gis ne peut-être nit ñi masawu rek mooy jël xaalis yëkkati xaalis. nga jox leen. naam li nga xamee ne moom la ñu yàlla jot a wërsëgalee. ci nawet bi. am na ay moto pompe yu ñu jël. Mhm. am surtout zone yi nga xamee ne foofu la ndox mi nekk. Mhm. ñu jox leen ko. Mhm. beneen bi aussi bëri na ay produits ay produits détergents yoo xame ne tey. donc jege nañ askan bi aussi tamit bokk ko ak ñoom. si doole bi nga xamee ne aussi moom lañu am aussi jàppale nañ ko askan yëmbal. ba ñu yëg ko wax dëgg yàlla. ba politique yoo ko rek. non du politique parce que tamit euh, wax naa la ko léegi ñun avant politique on des acteurs de développement. Mm-hmm. mais politicien du def dara. ci yàlla waaw politicien du def dara parce que comme li nga wax léegi ñun euh, xëy na xaaruñu rek ba politique. jot ñu jug mm-hmm. dugg ci askan bi mm-hmm. ñun yàlla dafa def ne on des acteurs de développement ak association bu ma yoree tey dañu yàgg taxaw yëmbal moo tax à chaque fois damay naan askan bi nañu bàyyi xel ci fuñ jëm. Mhm. parce que tamit euh, élection dëgg la élection la waaye nañu bàyyi ci xel. nit ñi nga xamee ne à chaque fois mhm. élection la ñuy jug pour dem dugg ci askan bi mhm. donc kon ñun en tant que ay acteur wax dëgg yàlla yàgg nañ taxaw askan bi yàgg nañ jël lu ñu am lu ñu amul bokk ko bokk ak ñoom dafa bëri ci acteurs politiques yi bu ñu wàccee sur le terrain pour jege population bi daanaka élection locale yi eh, kese mooy dëgmal moo tax ñuy def li ni mel waaw c'est normal parce que tamit nit ki bu dee danga nga ne da bëgg dëkk aussi tamit faw nga wàcc. Mhm. waaye euh, façon wàcc bi aussi tamit askan bi tamit nañ koy xool bu baax. Mhm. parce que mënoo toog cinq ans mënoo toog cinq ans wàccoo ci askan bi a cinq mois six mois de élections nga bëgg jug wàcc. ci mhm. askan bi. kon loolu day wane ne. politique la mm que tamit tey aussi dëgg la dañuy def politique waaye tamit aussi askan bi fu mu soxlaa war nga mën a dem jege leen. Mhm. xool lu ñuy dund nga dund ko ak ñoom. Mhm. mais quand même man vraiment dama dama xëy na damay ñaawlu à chaque fois. Mhm. élection buy jot rek. xëy na euh, candidats yi danañ bëri naam. wàcc ci terrain bi dana bari waaye toujours. lépp lépp dama koy delloo askan bi askan bi tey ñoo xam ku baax ci ñoom askan bi tey ñoo xam ki nga xamee ne aussi tamit bu dara dul dara mooy nekk ak ñoom ci inondation yi si kay say ay kàddu gis nañ ni yëmbal daanaka géej gi soriwul ko loolu pour indi saafara est-ce que jotu ñu def canalisation wàq yoon bi pour bu tawee ndox mi mën a jubali directement ci géej gi. effectivement li nga wax mooy solution bi nga xamee ne moom laa wax sànq la solution définitive mooy ñu wàqi ay yoon yoo xamee ne ndox mi dina mën a dem ci géej gi directement. Mhm. naam ñi ngi ci wax naa ko léegi ñàkkul ne am na yenn zone yoo xamee ne vraiment. am na ay kanaal ib nañ fa ay canalisation yoo xam ne ñi ngi dem ci bassin yi directement baadu canalisation taf yëngal rek ni ñu koy faral di gisee. non état mi ngi góorgóorlu ci côté boobu wax dëgg yàlla état côté boobu mi ngi ci góorgóorlu baax a baax baax baax ñun ñi nga xamee ne ñoo dëkkee yëmbal gis nañ ne tamit loolu noonu lu am la. Mm-hmm. am na ay yoon yu bëri yoo xamee ne vraiment. Mm-hmm. canalisation bi mu ngi fay jaar. Mm-hmm. pour dem ci bassin yi parce que dafa am ay bassin yoo xamee ne zone yi nga xamee ne vraiment ndox mi bari na fa lool. ndox mi foofu lay wàcc. Mhm. bassin yooyu nga lim sax wala canalisation yi ci bëri dañoo seetlu ni population bi ñooy indi jafe-jafe ndax dañ siy tuur ay mbalit ba tax buñ ci ndox bi bu fi waree jàll day fatt. waaw parce que tamit loolu aussi tamit ñun ñun aussi tamit dañ ci am wàll. Mhm. parce que bëri na ay bis yoo xamee ne dañuy wàcc ci terrain bi. Mhm. di waxtaan ak di sensibiliser population mbalit bi nga xamee ne moom la tuur ci bassin yi. parce tamit boo xoolee ak ces camions yi. Mhm. UCG yi surtout. Mhm. duñ fa wàcc. Mhm. te tamit tey aussi tamit euh, environnement aussi tamit mooy lépp. nit mënul yore mbalitu këram ay fan di ko bàyyi ci këram. moo tax jafe-jafe yi aussi tamit foofu la. moo tax dañuy waxaat aussi tamit autorités yi ñu bàyyi xel. ci kër yi nga xamee ne vraiment dañu nekk sori te camions yi aussi tamit duñu wàcc foofu. finalement dañuy mujj rabattre ci ay. charrette mhm. yoo xamee ne aussi tamit ñenn ñi nga xamee ne am nañ moyen aussi tamit dañuy fay mhm. charrette yi ñuy ñëw di jël mbalit mi di mhm. yóbbu mais tamit ñenn ñi nga xamee ne dañ xaw a sàggan aussi tout le temps ñooy jël ndox mi di ko sotti ci euh, bassin yi euh, euh, di ko sotti ci bassin yi te loolu aussi nekkul loo xamee ne wax dëgg yàlla dafay doxal dëkk day am sax ay jeexintal ku lim ay mbalit lim inondation wax wàllu assainissement politique d'assainissement sa yëmbal naka la tëddee waaw comme lu ñu assainissement ci yëmbal noor wax dëgg yàlla tey pratiquement mën naa wax ne quatre-vingt pour cent mm-hmm. ci mbedd yi ngay jaar mm-hmm. donc dafay taa mm-hmm. tey dama koy wax te dama koy réitéré waat quoi di ko wax parce que tey dëkk bu toll ni yëmbal ak histoire politique yëmbal tey waroon nañu mën a dépassé fii moo tax ñun ñi nga xamee ne tey dañoo prétendre ëllëg pour diriger la commune am nañ ci ay saafara parce tey c'est pas seulement le candidat seulement l'équipe mm-hmm. te tey ñi nga xamee ne aussi ñooy ànd ak ñun aussi mm-hmm. am nañ ay technicien am nañ ay ingénieurs yoo xamee ne wax dëgg yàlla mm-hmm. tey ci loolu ñu ngi ci di xalaat moo tax projet bi nga xamee ne moom lañ teg aussi tamit pour waat yëmbal incha allah du yàgg dara dinañ ci ñëw ci waxtaan bi muy wàllu sax euh, programme bi en tant que acteur politique nekk doom ba yeewoo ca yëmbal noor est-ce que par exemple gis nga ni maire bi daaw Daouda Ndiaye moom dëkk na ay jéego ci wàllu assainissement. waaw xam nga nit moom mënul nekk ci mandat ba mandaam jeex nga ne ko deful dara. Mhm. loolu moom euh, du loo xamee ne lu jaadu la. Mhm. waaye dañu gis ne. Mhm. des na lu bari. côté assainissement moom mi nga xamee ne moo nekk maire même bu dee loolu nekkul compétence am waaye aussi tamit ci li nga xamee ne moom la ñuy voté. budget yëmbal mm. ñàkkul na ci am na ci benn fonds boo xamee ne donc war nañ ko mën a sentir sur le plan de l'assainissement xëy na mm. nag population bi ñu ngi koy tamit joytu comme mm. nu ma wax rek mm-hmm. population bi ñoom ñooy juger ëllëg mm-hmm. mais quand même ñun aussi en tant que ay acteurs mm-hmm. politiques gis nañ ne sur le plan de l'assainissement wax dëgg yàlla des na des na quoi lu bari ci wàllu dem beeg dikk bi muy infrastructure ci yoon gis nañ ni yëmbal daanaka yoon yi dafa xaw a xaye di lool am na sax kuréel yu juddi ay mouvement Euh, yëmbal va mal ak yeneen kuréel yi nga xam ne daal ñoom seen bëgg-bëgg mooy am na tali boo xamante ni at a ngi nii daal ñuy sàkku ñu defaraat ko ba léegi daal liggéey yi dañ ko tàmbali woon après ñu dakkal ko ba léegi France daal xëddeen gis nañu sax weer yële si ginnaaw génnoon nañ def ab manifestation bu mag ci bu mujj bi rek ñoo ngay annoncé waat yeneen manifestation ci wàllu jumtukaay muy dem beeg dëkk bi muy tali yi lan mooy tolluwaay bi ci yëmbal waaw muy profité comme ni nga ko waxee di euh, nuyu waa yëmbal mouvement yëmbal va mal hmm. ak yeneen mouvement yi nga xamee ne ñoo fa nekk tey tey taxaw di alerter hmm. comme ni nga ko waxee ci euh, problème deux voies yi hmm. parce que dafa nekk loo xamee ne wax dëgg yàlla duma ma ne rek yëmbal waaye jëm ba Malika Kër mhm. Masar mhm. wàcc ba yëmbal sud aussi mhm. nekk na loo xamee ne jafe-jafe la parce que yaa ngi naan at sax waaye boo seetloo ñett at ci ginnaaw dañoo arrêté liggéey travaux yi ba tax na ci jamono yële passé am na benn yëngal bu ñu fa jotoon def vraiment yëngal boo xamee ne tey état tamit jotoon nañ wàcc si aussi ba commencé woon def seen taf yëngal yooyu mais benn fan lañ ko def ñaari fan ñu taxawaat mu nekk nag loo xamee ne aussi tamit ñun ñi nga xamee ne ñoo dëkk yëmbal aussi di fa yeewoo aussi nekk na ay jafe-jafe yu metti mhm. parce que ku ne yëmbal tey même taxi boo ko jëlee boo nee yëmbal laa jëm mhm. donc je pense que leneen lay wax mhm. moo tax euh, dañuy ñaan encore une fois de plus ñi nga xamee ne ñoo yore liggéey bi ñu ñëw yeggaluñu suñu devoir yi parce que yëmbal bi nga xamee ne fa lañ nekk yoon yi nga xamee ne moo fa nekk benn baaxul lu ko dalee yëmbal ci station bi jëm ba benn braak wàcc ba ci yëmbal sud mën nañu wax ne tali bi moom wax dëgg yàlla nekk na loo xamee ne oto yi nga xamee ne ñoom ñoo fay jaar sax bon ñàkk pexe moo tax ñu fay jaar waaye ñi nga xamee ne ñu bëri yëmbal lañ dëkk parfois li ñuy préférer dem jël corniche bi pour mën a ñëw dugg si yëmbal mm-hmm. donc comme ni nga ko waxee aussi tamit euh, ñoom ñoo ñu mën a dimbali rek ñëw jàppale ñu ñu mën a yeggali suñu devoir yi parce que jafe-jafe rek moom lañ jural. kon bu ma comprendre yëmbal amul benn tali bi nga xam ni méngoo na ak jamono. déedéet pour ma xoo pour ma wax dëgg. Mhm. yëmbal amul benn tali boo xamee ne tey mën nañu wax ne méngoo nag jamono loolu moom dama koy wax sama baat. Mhm. nekk ci kaw te ñi nga xamee ne ñu ngi may tamit déglu. Mhm. dëkk yëmbal xam nañ. li nga xamee ne moom laay wax. Mhm. alors lan mooy responsabilité acteur politique yi ak euh, jiital localité bi muy maire bi. waaw je pense que xeex bi moom. Mhm. duñ leen ci xaar. Mhm. parce que je pense que la dernière fois manifestation bu ñu mujjee def. donc euh, ñi nga xamee ne taxaw nañ. pour yëmbal jotoo nañ leen ci gis. waaw du tudd nag parce que euh, xëy na ñàkkul ne ci jour boobu ñoom ñi nga xamee ne ñoo far ci état te te man mii may wax ak yow. Mm. nekk fa. Mm. amul benn autorité boo xamee ne gis nañ ko fa. Mm-hmm. mu nekkoon loo xam ne nag vraiment dañ ko déploré loon déploré bu baax a baax baax parce que mënuñu nekk di xeex pour yëmbal pour ñu taxawal suñuy devoir yi ñu yeggali ko. Mm-hmm. mais tey dama gisoon ne ñoom seen wàllu bopp autorité yi nga xam ne ñoo fa nekk. Mm-hmm. en commençant par le maire. ou le député ñoom ñoo waroon njëkk ci combat boobu. mais quand Euh, ñi nga xamee ne aussi tamit yëmbal ñox na leen. Mhm. wax dëgg yàlla jour boobu noonu génnoon nañu en masse. ba yaa nga fa woon rek. maa ngi fa mhm. maa ngi fa woon ànd ak ñi nga comme ñi nga tudd nii mouvement yi nga xamee ne ak euh, doomu yëmbal ñi nga xame ne tey. Mhm. loolu noonu. ñoxoon na leen. alors kon ñu faree ci gouvernement bi kon dafa mel ni si je comprends bien dañuy doye dal seen xeex bi. waaw parce que xëy na tamit euh, arrangé wu leen. parce man loolu laa gis. parce que tey aussi euh, presque mënoo génn ne la ngay xeex benn mbir ñoom fu ñu toogee position bu ñu nekkee xëy na dañuy naan état la ñuy xeex. Mhm. moo tax ñoom dañuy sóoraale tamit seen bopp. Mhm. mais quand même sa askan bu soxlaa. Mhm. jàpp naa ne mu nekk soxla boo xamee ne. suñu soxla la ñun ñëpp. même yow bu fekkee da nga ànd ak état sax. da nga war a génn ànd ak ñoom. moo taxoon vraiment ñu jotoon fi sujet le fet que jour. marché bi. Mhm. autorités yi nga xam ne ñoo fa nekk. Mhm. kenn ci ñoom jotuloon jënd. alors xeex bi léegi fan la toll yan jéego ngeen ci def alors ba ngeen amee defalee manifestation boobu ba léegi est-ce que gis ngeen avancé waaw wala déet. bon avancé bi amul. Mhm. parce que euh, jotoon ñu recevoir. dalal ñu waxtaan ak ñun. la ministre Amadou Hott. promettre ñu ne avec euh, le gouvernement. avec ñi nga xamee ne tey ñoo yore euh, deux voies bi danañ yeggali. yoon yi. Mhm. waaye bu ñu dalalee tamit waxtaan ak ñun je pense que une semaine lañ ci teg ci benn fan ñu ñëw indi seen oto yi ñu ñëw taxaw côté bi nga xamee ne surtout côté estation bi nga xamee ne foofu moom moo nekk euh, zone boo xamee ne ndox mi daanaka foofu lay taa. Mhm. fa la ñëw laal benn fan. Mhm. et je pense que tey nii may wax ak yow boo fa jaaree tey la wàllu gën a ñaaw. kon xeex bi. ñu koy continuer du ñàkk ne fii ak ay fan yu néew. kuréel yi nga xamee ne ñoo seq mbir moomu ñi ngi waxtaan xool aussi ban taxawaay la ñu mën a amaat ba bu ëllëgee ñoom ñu mën a bàyyi xel. Mhm. foofu noonu. kon ñoom li ñu leen waxoon daal dañoo wax ni dañuy ñëw def ko ñu ñëw ñaari fan benn semaine ñu ñëw def état des lieux dellu boobu ba léegi dellu see. boobu ba léegi gisuñu leen. Mhm. je pense jour bi nga xamee ne moom lañ ñëwoon def seen taf yëngal. Mhm. jour boobu lañ jëlaat seen camion seen bagage yëpp dem. vraiment nag ñu koy ñaawlu trop. est-ce que non parce que tamit xam nga yëglu bi mooy par voie courrier. Mhm. parce que tey aussi du ma ne man acteur politique politique laa jafe-jafe yi nga xamee ne moo am sama commune du ma ci du ma ci taxaw. Mhm. mais par voie courrier. Mhm. ñi nga xamee ne en commençant par le sous-préfet vraiment parce que tey moom moo fa nekkal état aussi tamit tey lépp loo xam ne dañ koy def. ci moom lay jaar. donc kon ñun bind nañ ñu ngi toog nag di déglu. mais jàpp naa ne fi ak peut-être. quelque temps. bu ñu amul réponse ci bind bi nga xamee ne moom lañ def aussi tamit dina ñu déggaat. Mm-hmm. Euh, yéen a ngi si émission gox bi ci rajo mi FM 97.5 ñuy dalal Ndary Aidara di candidat à la mairie de Yeumbeul bokk ci parti bi di LDR Yeesal te Modou Diagne euh, Fada jiite ko leneen ci wàllu tey ci émission bi ginnaaw wàllu infrastructure muy jumtukaay gis nañu yëmbal nag dañuy jànkoonteel ay jafe-jafe ci wàllu suuf muy problème foncier daanaka sax jafe-jafe boobee ci Sénégal wërngal këpp la. ci yëmbal nag am na yenn mouvement yuy jox xar bi baaraamu tuuma ni yenn ci ay suuf maire ba Dakar jaay est que loolu yëg nga li ni mel. waaw parce que problème foncier comme ni nga ko waxee fii euh, ci weer yi ñu génn. Mhm. nekk na coow loo xamee ne am na yëmbal. Mhm. ci benn 23 hectares bi nga xamee ne président de la république. Macky Sall son excellence le président Macky Sall. Mhm. jotoon na ko jagleel commune bu Yëmbal Nord. bon ci diggante bi aussi tamit ñu jëlaat ñetti hectares yi. Mhm. jox ko benn entreprise bu ñuy wax Eleka. Mhm. muy euh, Dembaka. Mhm. jotoon na fi indi ay coow. waaye tamit teewul ne ba léegi aussi tamit li lu taxoon ñu jël vingt hectares yi. jagleel ko commune u Yëmbal Nord. je pense que lu ci ëpp infrastructure la. ak ñenn ñi nga xamee ne vraiment dañ leen tuddee les. impactés. donc tey nag coow li nag bari na lool. parce que tamit tey aussi tamit xëy na. ñi nga xamee ne ñoo yore gestion tamit boobu. en mm-hmm. commençant par le maire. Mm-hmm. xëy na ñu ngi koy joxoñ baaraam. di ko mm-hmm. tudd ci litige bi. mais quand même ñun aussi ñun tamit ñi nga xamee ne ñun on est des acteurs aussi tamit. xëy na mënuñu ci sori. parce que tamit dossier bi tamit. maîtriser wuñu ko. moo tax loolu aussi du ma ci mën du ma ci mën a wax. mais daal comme li nga wax bëri na ay mouvement yoo xamee ne tey. ñi ngi taxaw di joxoñ baaraam ñi nga xamee ne ñoom ñoo fa nekk. te yoore doxalin boobu. Mhm. mais man en tant que acteur aussi tamit comme nu ma koy waxee en tant que acteur tamit politique. Mhm. lépp loo xamee ne maîtriser wu ma ko. Mhm. du ma mën a taxaw tamit quoi di ci wax. Ah, loolu mooy lu jaadu sax suuf gi ñu waroon ko delloo population bi mu mel ni maire bi ah, daf ko jaay mu toll ci ñaar fukki hectare ak ñett loolee sax jur coow ca yëmbal noor leneen lu jur coow ca yëmbal ndoor muy ñàkk kaaraange gi seetlu nañu yëmbal daanaka insécurité eh, dafa am alors en tant que acteur politique yow. par exemple loolu naka nga ko gisee ak euh, nan nan lañ mën a def ba indi saafara ci li li mel. waaw je pense que insécurité moom fépp la. Mhm. fépp la dëgg la yëmbal fa lañ juddoo fa lañ màggee fa lañu yaroo. Mhm. tey aussi su ma taxawee ne insécurité amu fa. Mhm. damay wax lu ma neex. waaye de takk der yi nga xamee ne ñoo fa nekk. ñi nga xamee ne xëy na peut-être euh, en commençant par la commissaire. de la police ma koy jaajëfal bu baax. parce que ki nga xamee ne moom moo wuutu commissaire Diouf. Mhm. mi ngi am liggéey bu am solo boo xamee ne mi ngi koy def. Mhm. ci côté insécurité. Mhm. parce que bëri na ay zones yoo xamee ne tey yëmbal euh, bu ñu mësoon wax yëmbal dañ fay dañuy naan nit ñi buñ fa dem. mais tey boo demee zone yooyu tamit zone yooyu tey ñoo ëpp sax sécurité. fu ci mel ne mbedd faas. parce que tey yëmbal boo nee mbedd faas rek. ah automatiquement man foofu laa dëkk de. fa nga dëkk fa nga dëkk mais tey dama lay wax ne. dama mbedd Fass ba léegi amul sécurité dama lay si mbedd Fass euh, nu ñu doon waxee mbedd Fass bu njëkk ba. Hmm. ak léegi wute na. Hmm. may profité nag di jaajëfal. ay jeunes yi nga xamee ne ñoo fa nekk. Mhm. jeunes yi nga xamee ne mais laataa jaajëfali mbedd fas man Sicap Mbao laa dëkk. ku wax ah. Sicap Mbao ni Fass Mbao mbedd Fass. mbedd Fass insécurité ba fa am muy <laughs> suba muy bëccëg muy guddi nit ñemewu fa romb boo rombee ñu jël li nga mel insécurité bi ba léegi ma nga fa de. dara soppeekuwul non mais changement am na fa. lii ma lii nii ma lay wax changement am na fa. Mhm. parce tey. mën naa wax ne mënoo ñëw léegi mbedd Fass te gisoo auto police bi. Mhm. droite noonu quoi taxaw. Mhm. donc kon moo tax sànq boo déggee ma ne maa ngi jaajëfal ki nga xamee ne moo fa nekk. Mhm. parce que du ma ne ñi nga xamee ne nekkoon nañ fi daaw ñu woon euh, saytu zone boobu. mais nii may wax ak yow. wax dëgg yàlla comme nu ñu doon coowee mbedd Fass autant. wax dëgg yàlla ñu ngi fay commencé am gis sécurité bu baax rawatina nag. ay jeunes yi nga xamee ne ñoo fa nekk ci benn association boo xamee ne aar mbeddu Fass ay jeunes yu vraiment yu dynamique mhm. ay jeunes yoo xamee ne tey mën nañu wax ne lamp yi nga xamee ne moo fay takk tiim mhm. tey tali bi tey association bi ñoom ñoo ko fa def en même temps di fa monter aussi tamit guddi mhm. di jàppale aussi takk der yi ci seen sécurité dañoo taxawal par exemple comme comité de vigilance dañoo taxawal comité de vigilance jotoon dem seeti autorité yi waxtaan ak ñoom parce tamit tey xam nañ mënul lépp. Mhm. d' plus que xëy na seen éléments yi. mënuñu ak seen moyen logistique yi munuñu mënuñu munuñu mhm. yegg fépp. Mhm. ba tax ne comité de vigilance bi nga xamee ne moom laa lay tuddal tey. nekk nañ ay jeunes yoo xamee ne vraiment ñi ngi liggéey ak la police. te tey aussi lépp luy insécurité tamit. ci zone boobu di mbedd Fass aussi tamit. Mhm. ñu ngi ci jàppale autorité yu baax. Mhm. muy lu am solo ñu àddu si jàng ak jàngale laataa ñoo dem ci wàllu wér-gu-yaram ci éducation bi lan mooy tolluwaay bi ca yëmbal. waaw éducation bi macha allah parce que tamit yëmbal aussi tamit tey mën nañu wax ni bëri na ay xale yi nga xamee ne tey ñu ngi leen di ñu ngi leen di gis. Mhm. wala di leen dégg sur le plan national. naam nag jafe-jafe yi bari na. ci wàllu école yi ci wàllu école yi parce que tamit tey aussi tamit ak population bi nu muy màggee aussi mm-hmm. tamit mm-hmm. tey tamit ñaan nañ yàlla aussi tamit ñu gën a yokk tamit école yi. ñaata école par exemple moo fa. waaw yëmbal bëri na école parce que école bi nga xam ne tey mën naa wax ni falaa laa muy école élémentaire. Mhm. bu Abdoulaye Diop. Mhm. donc am na benn école bataillon bu nekk ci comico bi. Mhm. am na école aussi bu nekk au niveau de Darou Salam 6. donc am ngeen lycée yeneen lycée ak CM yi nga xam ne tamit ñoom ñoo fa nekk. donc tey mën nañu wax ne. donc euh, ak population bi nu mu màggee tamit. Mhm. ñi ngi wax tamit état ñu bàyyi ñu xel. Mhm. te am nañ ay projets yoo xamee ne tey aussi bu ñu yàlla dénkee. Mhm. mairie bi tey. danañ yokk école yi. CM yi tamit. danañ xool tamit na lañ koy tamit. Mhm. mën a yokkee. pour population yi bañ a génn ci milieu boobu di dem feneen. surtout ça surtout ça parce que tey boo xoolee ñenn ñi nga xamee ne sax dëkkuñu yëmbal dañuy préférer ñenn ñi dañuy jël seen doom yi. Mhm. ci yenn dëkk yi nga xamee ne moo wër yëmbal. Mhm. dañ leen di indi ci école yëmbal yi ñii ñii di. xëyee foofu di jàngee foofu moo tax tey aussi tamit solution bi lenn la rek mooy ñu yokk école yi bien vrai que on a am nañ fa lycée am nañ fa lycée bu mag boo xamee ne boo leen seetloo ci at yi passé daanaka mën nañu wax ne ci région de Dakar chaque année lycée bi mooy génn premier. Mm-hmm. donc kon tey lycée bi tamit déborde na tey. Mhm. parce que tamit ku ku ci nekk tey day bëgg di jël sa doom indi ko ci lycée boobu. Mhm. moo tax ñi ngi ñaanaat tamit ñu yokkaat aussi ñu yokkal ñu aussi tamit beneen lycée boo xam ne danañ mën a permettre ëllëg suñu doom yi nga xamee ne tamit dañuy ñëw. Mhm. ñu mën a am fu ñu leen mën a dugal. pour mu mën a couvrir la population ci àddu ci wàllu wér-gi-yaram seet nañ ci fan yële ñu génn amoon na coow bu rëy bu fa amoon ci si district sanitaire bu fa nekk ndax ambulance bi ñu leen joxoon daanaka baaxul ba population bi sax ñoom ñoo ko doon puus mu ne woon mu jur coowul sax sax euh, ay vidéo yi doon na sax circuler ci internet bi yow en tant que acteur euh, politique gis nañ nga def euh, acte nga jël benn ambulance nga may ko district sanitaire bi laata loolu sax tolluwaay bi ci wàllu wér-gi yaram naka la tëddee ci yëmbal waaw côté wér-gu yaram ñu ngi ciy gis ay avancé parce que yàlla jàppale nañu ci ati yi passé mhm. ñu inauguré fa benn hôpital mhm. benn district benn hôpital boo xamee ne tey mën nañ wax ne mhm. xëy na ñun ñi nga xamee ne dañu doon jógee yëmbal di dem di fajoo ci yeneen hôpital yi jàppale nañu bu baax a baax baax mhm. naam aussi tamit euh, personnel bi tamit mhm. dañuy wax ne nañ ko gën a yokk mhm. parce que tey ñu yore tamit benn euh, hôpital mu am benn niveau boo xamee ne tey boo duggee ci hôpital bi dangay ngay gis ne ci wàllum infrastructure ci wàllum batiment aussi tamit hôpital bi hôpital bu mag la waaye aussi tamit ñuy wax ne rek personnel bi. Mhm. moo xaw a des. Mhm. parce que tey aussi boo xoolee poste de santé yi nga xamee ne ñoo nekk yëmbal. ñëpp mhm. mënuñu tamit couvrir malade yi nga boobu tamit côté santé ñu gis ne tamit. wax dëgg yàlla euh, war nañ leen mën a taxaw baax a baax baax moo tax ñun ci suñu côté aussi tamit ak yëngu-yëngu yi nga xamee ne moom la ñuy yëngu aussi lépp loo xamee ne yàlla mi ngi koy may aussi tamit ñu koy jëlee ci suñuy partenaires yi ñu ngi koy dem di ko séddoo yenn poste de santé yi nga xamee ne tey ñoom ñoo nekk euh, biir yëmbal mhm. parce que tamit nañu xam ne rek état mënul lépp mhm. bu fekkee dañu toog ne lépp dañ koy bàyyil état rek je pense que du sotti mhm. moo tax ñu mel ne ñun aussi ak ñeneen aussi ñoo xamee ne ay doomu gox gi la gox bi lañ ñu ngi leen di ñaan aussi lépp lu ñu mën a def ci santé nañ ko def parce que tey bu ñu ko defee seen bopp lañ ko defal. loolee tax sax nga yëkkati benn ambulance may ko benn district euh, sanitaire. waaw je pense que def nañ ko. Mhm. Euh, dañ ko wax def. parce que mhm. c'est pas la première fois. Mhm. ma def ko. parce que ci jamono yële passé en 2015. indi woon nañ fi jotoon nañ fi indi benn ambulance de deuxième main. médicalisée jagleel ko waa maternité bu yëmbal. te tey ku ne maternité di yëmbal xam ñu bëri. ci jigéen ñi. Mm-hmm. bu ñuy accoucher foofu la ñuy dem. Mm-hmm. mu nekk maternité boo xamee ne vraiment patrimoine bu yëmbal la. Mm-hmm. yàlla def en 2015 ñu jotoon ko indi. vraiment côté boobu ma fay jaajëfal maire parce que tamit moo ma yombaloon tamit. dugg bi aussi mm parce que ay partenaire ela am mm tey aussi bu mu waree dugg aussi tamit dañ ma ne dañ ma xamaloon ne tamit foog mu am signature maire mm -hmm. vraiment côté boobu maire tamit xawoon ci jàpp ba yàlla def ambulance bu ma ko indee aussi tamit jagleel ko waa yëmbal aussi tamit muy daw juróomi at après ambulance bi panne. Mhm. ñu woowaat ma aussi waxtaan ak man parce que tamit xëy na li nga wax sànq bokk na ci lu tax ambulance bi gën a panne yoon yu baaxul yi. Mhm. parce que tamit tey aussi boo indee lu baax aussi tamit teg ko te. fi nga xamee ne fa lay jaar aussi tamit mhm. baaxul aussi day nekk ay jafe-jafe ambulance bi bu mu paanee aussi ma dajeek aussi tamit euh, vraiment euh, comité de santé bi ñu toog ñu waxtaan ñu ñaanaat ñu aussi beneen ambulance yàlla def aussi tamit partenaires yi nga xam ne ñoom lay àndal aussi te heure bu ma voyager aussi tamit di waxtaan ak ñoom mhm. fan yi passé nag wax dëgg yàlla ñu indi leen beneen boo xamee ne bu bees la boo xamee ne zéro kilomètre d'une valeur de trente cinq millions mhm. donc ñu indi leen ko jaxleel leen ko xam ne aussi bu ñu ko defee yëmbal lañ ko defal mhm. xam ne aussi bu ko defee suñu bopp lañ koy defal kon tey xëy na am na ay yenn poste de santé yu fi nekk kon dañuy ñaan tamit ñi nga xamee ne yàlla may na leen. Mhm. ñu nekk ci état wala nekkuñu ci état sax ñu bàyyi askan bi ci côté santé bu baax. Mhm. ñu ngi ko junjee ci say kàddu loolee sax responsabilité maire bi la moo waroon a def li ni mel yow en tant que acteur politique ngay aspirer jël yëmbal noor nga def li ni mel euh, ñu dugg ci fond débat bi muy wàllu politique Daouda Ndiaye ba mu toogee ci boppu maire yi yëmbal ba léegi yorin bi yow naka nga ko gisee. waaw gestion Daouda Ndiaye nu may lu may wax toujours rek. Mhm. xam nga nit moom buñ la dénkee. Mhm. am nga responsabilité. bu baaxul rek yow la ñuy joxoon mm-hmm. yow la ñuy joxoon baaraam mhm. ba tax ne population bi bu ñu jugee. Mhm. wax ne gestion Daouda Ndiaye baaxul rek. Mhm. kon dama ne moom war na mën a. xoolaat population bi bi non si <laughs> population parce que man en tant que politique tamit. damay wax li nga xamee ne moo am. parce que tamit ñun nee la yëmbal fa la nekk fa la juddoo fa la defee lépp. parce que lii may wax aussi tamit. dama koy wax parce que ça ne pas dire que dañ ma invité rajo dama bëgg euh, pour dama nekk candidat pour. jël mairie bi. Mhm. damay wax li nga xamee ne moo nekkul. Mhm. je pense que en 2014 parce que lu may wax aussi tamit. Mhm. dama koy wax mu leer. je pense que en 2014 ku xamoon PDS. yëmbal Nord. xam ne PDS c' était un grand parti. ku xamoon PDS ci moment boobu. xamoon PDS bu demoon élection local dafay jël maire bi. man j' étais le candidat du PDS en 2014. ma nekkoon coordonnateur PDS. jiite PDS. waroon nekk tête de liste pour jiite liste PDS. yàlla def ci ay xëccoo. ci ay xëccoo suñ biir. Mhm. en interne. ak parti bi xëy na peut-être ci moment boobu noonu yenn lobby yu ñu defoon. Mhm. ba am ki nga xamee ne moom lañu jiitaloon sama kaw. Mhm. yàlla def finalement PDS dem en forclusion. je pense que c'était en 2014. élection yi bu mu jeexee Daouda Ndiaye toog je pense que ñaari weer lañ ci teg ma dem ci bureau en tant que jeune nag. maa ngi woon ci opposition bi mais dama dem ci bureau am toog ak moom waxtaan ak moom ne ko nag ah fii yàlla fii nga toog tey yàllaa la fi teg. Mhm. xëy na man dama doon xëcc pour toog fii. Mhm. waaye yàlla yow la fi teg tey. waaye tey dama jug xooluma politique xooluma dara dama jug pour li nga xamee ne moom laa mën. Mhm. am ko ci ay partenaires ak li nga xamee ne moom la may. yàlla may ma jàppale askanu yëmbal dimbali si ci sa tamit gestion parce que tamit mënu ma woon wax ne moment boobu dama nekk opposition rek tey damay taxaw xeex donc man ci ma ñëw toog ak moom waxtaan ak moom wax dëgg yàlla kon day wane ne tamit tey yëmbal aussi tamit moom moo ma moo tax tey boo taxawee aussi tamit laaj ma ci côté gestion maire tamit damay naan aussi tamit tey moom mi nga xamee ne moom la fa yàlla teg aussi. Mhm. population bi bu ñu waxee ne bu ñu fustigé gestion bi rek. Mhm. damay naan kon gestion bi kon baaxul. Mhm. am na lu manqué. du ma ne nag deful dara waaye tamit. manqué na laal daa mel ni lu mu deful moo ëpp lu mu def tey. waaw moom lañ wax moom la waa Jëmbal wax boo gisee waa Jëmbal ñëpp jug. Mm-hmm. bëgg ko fi jëlee tamit mm-hmm. dañu gis ne aussi tamit yëmbal mm-hmm. fu ñu ko doon xaaree moom fu ñu ko doon xaaree en tant que un jeune maire yeggu fa ak absence bi ni ko gars yi di décrier maanaam li mu fay nekk bariwul en plus dégg naa sax dëkku fa est-ce que mën nga dëggal li ni mel <laughs> non loolu moom su ma ko waxee moom damay wax lu ma neex parce que dëkku faak euh, fa la dëkk ah man de xam naa ne euh, heure mu heure bu ma ko bëggee gis ça veut bu ma ko bëggee gis waxtaan ak moom ci ay Mhm. projet. Mhm. dama koy gis nekk ma nag koo xamee ne mën naa wax ne damay dem këram di waxtaan ak moom. Mhm. fu ma ko waree gis fu ñu koy gisee. place su liggéeyukaayam. mais man heure bu ko waree gis wala mu bëgg ko gis lu jëm ci wàllu yëmbal. lu jëm ci ay. projet yëmbal quoi dama koy gis mais quant fa la dëkk dëkku fa wax dëgg yàlla su ma ci naree wax tamit damay wax li nga xamee mais nag maire dafa war a yeewoo ci popula auprès de la population waaw loolu buñ la tegee ci dëkk la première chose bi nga war a njëkk def mooy nga fi nga dëkk nga mën fa dëggal sa bopp bu baax baax baax. Mhm. ñu bañ la gis ngay xëy di yeewoo tamit feneen. parce que mhm. tey aussi tamit yaa ngi koy wax moom. mais je pense que maire yu ñuy fal ñu si ëpp tamit bu ñu leen falee quelque temps après dañuy jóge seen dëkk fu ñu dëkk dem dëkk. feneen loolu nag moom yàlla nañu si yàlla nañu si yàlla musal ñun mhm. parce que dañ nekk ay jeunes baadu doo def loolu non dañ nekk ay jeunes nekk ay jeunes <laughs> bëgg yëmbal mhm. gëm yëmbal mhm. te amuñu lenn lu dul yëmbal moo tax dañuy ñaan yàlla aussi ëllëg bu ñu yàlla tegee tamit foofu noonu je pense que ñun du ñu bokk ci maire yoo xamee ne tamit dañuy génn foofu lépp lépp lu ñuy dund lépp lu yëmbal di dund. dañ koy dund ak ñoom. 2014 2021 muy juróom benn at bu ma juumul. bilan bi est-ce que lu ba bilan bu satisfaisant la en tant qu'acteur politique. bon je ne peux pas dire que c'est un bilan satisfaisant à cent pour cent. Mhm. mais tey bu ñu doon juger man personnellement su ma doon juger. Mhm. damay juger à quarante pour cent. Mhm. parce que tamit tey aussi bu doon bilan baax na. kon je pense que du jar moom wala ñi nga xam ne dañu ànd ak moom. ñii dem di di campagne. population bi ñoom ñoo koy. campagnal mhm. waaye tey population bu ñu taxawee mhm. jugandoo ñoom ñëpp pour mhm. bëgg ko fi jëlee je pense que tamit damay naan aussi tamit Euh, bilan bi des na. Mm bilan bi des na loolee tax nga bëgg a nekk euh, maire bu yëmbal euh, Nord lan moo lan mooy sa xemmemteef par exemple lan mooy objectif yi lan moo tax nga jóg jóg ni candidat nga à la mairie de yëmbal lan mooy ambition yi. waaw ambition bi mooy benn euh, taxawal gox bi. Mm lu tax ma taxawal gox bi parce ñun. bu ñu sañoon tey yëmbal noo day bokk ci commune yi nga xamee ne tey euh, mooy gën a mag ci commune yu nekk ci Sénégal parce que ñun aussi ñu fi juddoo màggee fi yaroo fi toujours benn visage bi la ñu gis avancement amul avancement amul avancement amul parce que loolu tamit dañ koy wax parce que man depuis bu ma nekkee ndëri nekk yëmbal noor ba léegi musuma gis ñu taxawal benn bâtiment mhm. ñi nga xamee nag jaar nañ ba tey moom mi nga xamee ne moom moo fi nekk amul benn infrastructure boo xamee ne tey taxawal nañ ko jéem nañ ko mhm. ba ne tey yëmbal noo aussi am na lii mhm. ñun aussi bu ñu jugee tamit taxaw dafa fekk ne rek juste benn bu dul politique bi ay acteurs de développement lañu mhm. parce que ku ne mairie aussi tamit wax coopération décentralisée parce que ñun ñëpp xam nañ ne budget mairie tey mënul couvrir lépp tey li nga xamee ne mooy doxal commune tey mooy am ay partenaires. Mhm. di dem di ñëw di jëli di indi. comme euh, ni ñu ko commencé def. ak entreprise yi nekk ci gox yi mais yëmbal moom bu ma juumul amul entreprise. wala yëmbal yëmbal yëmbal à part peut-être yenn batiment ay PAMECAS ak SEME mhm. ay euh, Crédit Mutuel euh, du Sénégal. Mhm. wax dëgg yàlla bëriwul bâtiment yi nga xamee ne tey aussi tamit. ci wàllum. impo mën nañu wax ne yëmbal mu ngi ciy gis boppam moo tax aussi tamit chômage bi bëri fa trop ndaw ñu fa xëyul bëri nañ trop et Mhm. Mhm. war nañ mën a créer ay entreprise war nañ mën mhm. a créer ay centre commercial war nañ mën a créer loo xamee ne ëllëg aussi tamit doomu yëmbali dinañ fa mën a xew ah. mais yooyu yëpp aussi tamit am nañ ay projet yoo xamee ne tey ëllëg aussi tamit bu ñu yàlla jàppalee ñu nekk ci bopp mairie bi tey dana am changement boo xamee ni ndaw yëmbali dañ ko gis. Mhm. alors ban programme ngay proposer population bu yëmbal ngir mën indi saafara ci jafe-jafe yi nga lim ci njëlbeenu émission yi ba léegi. waaw programme bu ci njëkk mooy programme emploi. Mhm. loolu dafa. mais loolu du compétence maire. waa du compétence maire mais tamit. mairie mën na créer ay emploi c'est-à-dire c'est-à-dire que tey ñàkkul ne am na ay bërëb yoo xamee ne boo ko fa defee tey mhm. ndaw ñi mën nañ fa xëy dafa gis seen bopp comme comme bëri mën nañ fa tey créer tey loo xamee ne mën nañ fa créer parce que wax nañ ko tey xëy na benn bi nga xamee ne tey mën nañ wax ne euh, ndaw ñi war nañ fa mën a gis seen bopp mm-hmm. tey mën nañ fa créer ay centre commercial mm-hmm. wala ñu créer fa centre commercial yoo xamee ne tey ndaw ñi nga xamee ne amuñu xëy mm-hmm. mën nañ leen fa jël par rapport ak li nga xamee ne moom lañ fay def aussi tamit ñu leen koy jox même bu dee dañuy fay ndànk-ndànk ñu leen fay jox ñu jox leen ko ñu fay ñu fay kii di xëy mën di xëy mhm. parce que tey am tey tey emploi des jeunes bu ñuy wax tey yëmbal tey boo xoolee à part ñi nga xamee ne dañuy bale tali bi mhm. wax dëgg yàlla gisuñu fa lenn lenn lenn loo lenn loo xamee tey mën nañu wax ne mhm. ndaw ñi ñu fay xëy parce que amul usine wax dëgg yàlla li nga wax léegi dëgg la am na yenn compétence yoo xamee ne compétence état la waaye tamit bu la yàlla tegee ci bopp mairie bi tamit am na loo xam ne yow yaa koy dox ci kaw pour mën ko indi donc kon man damay naan aussi tamit donc loolu noonu aussi tamit ñun ñi nga xamee ne ñun ñoo bëgg ëllëg nekk ci bopp mairie bi tamit. Mhm. xëy na jafe-jafe yooyu am nañ ci ay solution bu baax baax baax. à part xaw xëyu ndaw ñi beneen yeneen programme yi yàlla. waaw yeneen programme bi euh, lu ñu njëkk commencé léegi. Mhm. programme de l' assainissement. Mhm. parce que tamit euh, dafa nekk loo xamee ne aussi tamit bokk na ci li nga xamee ne tey waa yëmbal moom la ñuy jooy. parce que tey aussi daf ci am yenn quartier yoo xamee ne tey. ñun ñi nga xamee ne dañuy dem ci ñoom di leen visiter à chaque fois. Mm-hmm. quatre vingt pour cent ci ñi ngay toogal. Mm-hmm. bu ñuy wax problème ndox la ñuy wax. Mm-hmm. na fa ndox mi jóge ñoom ah, dëgg la jafe-jafe yi bëri na lool. waaye ñoom xëy na loolu dafa bokk ci loo xamee ne boo leen ko saafaralee rek. mën naa wax ne. teggil nga leen lu bari. donc problème de l' tamit. environnement bi tamit vraiment yëmbal dafa nekk benn dëkk boo xamee ne aussi tamit am na yenn zone yoo xamee ne vraiment donc pour nit am fa accès metti na. benn ci côté yoon. parce que tamit tey aussi pour nga accès ci dëkk aussi tamit fokk nga am ci yoon yi nga xamee ne moo fay jaax moo tax tey. ak dëkkuwaay bi ni mu mel. dëkkuwaay bi enclave enclavement. Mhm. dafa dëkkuwaay bi dafa enclavé en même temps aussi tamit lu ma wax sànq pour nga am accès tam. Mhm. ci kër yi nekk na loo xamee ne lu jafe la. ak kër yi ni mu bindoo tamit. waaw moo tax dafa lu lotissement amul. waaw ñu parce que da ci am yenn zone yoo xam ne aussi nañ comprendre. daal di yëmbal chantier la de. chantier la chantier bu mag ba tax ne lu ma wax rek c'est pas seulement. le maire. Mm-hmm. mais bu ci ñëpp jàppee surtout population bi parce que tamit nit ñi bu ñu gis ne politique politique politique. Mm-hmm. dëgg la ñun ñëppay politique. dañuy wax. Mm-hmm. waaye population bi dañ ci am wàllu baax baax baax te am naa yaakaar ne avec cette jeunesse déterminée. avec cette population engagée. am naa yaakaar ne ëllëg. Mm-hmm. bu ñu yàlla tegee foofu. Mm-hmm. danañ ci ànd ak ñoom. Mm-hmm. mbëbës fan la bokk. ci yëmbal mbëbës ci Malika la bokk. ah ci Malika la. waaw mbëbës euh, ci Malika la bokk. alors ci élection locale yi par exemple yow yan action nga mëneegul pour mën a euh, gagner maximum euh, de voix. waa xam nga ñun chance chance bu ñu am. mooy yàlla dañu jàppale. à travers association bi nga xamee ne moom laa yore. muy at yi. may profité di nuyu toute l'équipe de Adi mhm. euh, yàlla dañu jàppale ñu am ay partenaires mhm. yàlla dañu jàppale ñoo am ay nit ñoo xamee ne dañuy jàppale bu baax mhm. parce tamit tey man mosuma am responsabilité mosuma am poste de responsabilité ci côté politique bien vrai que nag maa ngi maa ngi politique nekk ci parti di fa ñafe mais tey mën naa wax ne lu ma def lu ëpp ci ay action ci yëmbal su ma ko deful samay poche naam mi ngi fi bëri na bëriwul hmm. waaye lépp ci développement hmm. moo ma ko may hmm. moo tax nag action yi nga xamee ne moom la ñu nekk di def mënuma lim tey parce que tey su ma ko limee wax dëgg yàlla duñ fi tey jóge parce que c'est a ngi préparé terrain bi waaw terrain bi du tey je tey bu ñu taxawee am fit tey taxaw di laaj yëmbal rek. dafa fekk ne daf ñu wóor ne élection nag élection la jëm mhm. yàlla mooy may ndam mhm. mais daf daf ñu wóor ne ne bu ñu tëggoon élection yi suba suba suba mhm. yàlla may ñu ndam loolu moom wóor nañu waaw ah, lan mooy baromètre bi ba nga wax la waaw parce que dugal yëmbal dugal yëmbal euh, nga def sondage ci ñi nga xamee ne ñoom neenuñ candidat maanaam ñan ngay jonganteel foofu ci candidat mais bëri na xam nga xam nga euh, langue bi moom dafa ibbi tey ku mu neex mën nga taxaw ne candidat nga. Mhm. yëmbal tey ñi ngay dégg ñu naan candidat lañ bëri nañ trop. Mhm. bëri nañ trop waaye man dama jàpp ne rek vraiment nag ma leen respecté ñoom ñëpp parce que nit ku nekk am nga am nga droit boo bëggee si mhm. man a defar sama dëkk. waaye am na foo xam ne bu ñu fa yeggee ci cappaandaw gi ku nekk. su wéetee dana xam. ku la mën. de boo duggoon yëmbal tey def sondage. ñi nga xamee ne ñoo nekk candidat yëmbal. tagguñu nag suñu bopp. mais dama jàpp ne ñu si ëpp. dañ lay naan demal nga seeti Ndeye Aidara. Mm-hmm. élection locale yi naka ngeen si duggee gis nañ kujje gi taxawal nañ ab coalition bu mag muy yeewu askan wi yow nga bokk ci parti LD Yeesal bu Modou Diagne Fada te Modou Diagne Fada mu ngi faree ci mouvance présidentielle bi naka ngeen di duggee ci élection yi parti LD Yeesal mooy demal boppam wala day lëngoo ci day bootu ci coalition benn Bokk Yaakaar. waaw may profité si occasion bi di nuyu euh, suñu président muy le président Modou Diagne Fada. njiital Sonacos vraiment euh, di directeur général Sonacos. di mhm. président LDR Yeesal mm-hmm. ci taxawaay bi nga xamee ne moom la am ci Sonacos bi nga xamee ne moom lañ ko dénk ak mm-hmm. jéego yi nga xamee ne mm-hmm. moom la def ci Sonacos depuis le président Macky Sall bu ko dénkee ba léegi bon di ko jaajëfal aussi ci tournée agricole bi nga xamee ne moom la def ci fan yi passé avant le màggal ñu gis ci une réussite une réussite totale. Mhm. parce que tamit profité. waa mais ñu ñëw ci élection locale. waaye aussi tamit tey su ma fi toogee aussi tamit. Mhm. en tant que Ndari Aidara. Mhm. moom laa fi teewal parce que tamit parti bi nga xam ne moom la yore. maa ko ci liggéey bi nga xamee ne moom la ko président Macky Sall. dénk waaye aussi da nga wax da nga laaj question bu am solo. mooy coalition yi nga xamee ne moo taxaw. dëgg la. gisoo ma ci coalition Yewwi Askan bi nga xamee ne opposition yi opposition bi tey. Mhm. moom lañ taxawal. gisoo ma aussi ci coalition Benno Bokk Bokk Yaakaar bi nga xamee ne tey. Mhm. mën nañu wax ne fa lañ bokk. Mhm. parce que tey président Modou jaañ fa la. fa la bokk. waaye coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamee ne moo nekk Yeumbeul Nord. dugguma fa bokkuma fa. dëgg la nag aw ma ak ñoom problème. mais aussi. man dama nekk nit koo xamee ne wala ñun dañu am ay principe mhm. parce que dañ ne élection locale du président moom moo ñuy tànnal mhm. nañ bàyyi askan bi tànnal seen bopp mhm. xëy na nag ñun parti lañ bëgg nañ ëllëg suñu parti am fu mu toll waaye lépp lu jëm ci côté local aussi tamit dañuy déglu base bi te tey boo gisee dugg ci coalition boobu ñun ñi nga xam ne ñoo fa dëkk aussi tamit xam nañ ne taxawaay bi nga xam ne moom lañ am moom lañ waroon am ci askan bi amuñu ko moo tax ñun aussi on a très tôt compris génn nag taxawal ñun suñ beneen coalition boo xamee ne tey coalition yeesal la waaye ñi nga xamee ne aussi ñoo bëgg ànd ak ñun ci élection locale yi. kon LD Yeesal moom yéen da ngeen di demal seen bopp ci élection yi. doo leen lëngoo ci coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw je pense que foofu du ma ci sori parce que dama nekk ci parti. Mhm. Euh, respecté discipline sori nga si ndax wax nga ni da ngay dem. waaw mais tamit mais tamit c'est boo boo déggee mën a la. Mhm. ñun du ñu ànd ak ñi nga xamee ne ñoo fa nekk. ci mhm. benn Bokk Yaakaar bi dafa am fu ñu ko teg. ndax da ngeen bëgg bopp mairie bi moo tax àndoo leen. waaw. parce que tamit tey aussi ñun xam nañu ku dugg ci coalition boobu dañ lay sanctionné yow. Mhm. personnellement yow dañ lay sanctionné mais képp ku dugg ci coalition boobu dañ lay sanctionné. moo tax sànq ci biir wax mu ne ñun gëmuñu nit toog ci kaw di ñu tànnal. Mhm. suñu maire. Mhm. parce que tey boo xoolee Sénégal ba Sénégal daj soixante-dix pour cent. maire yu fi nekk ci seen communes yi xëy na ñenn ñu nekk ci kaw. ñoo nekk ci kaw. tànn ñi nga xam ne ñoo nekk ci base bi moo tax ñun dañu ne loolu dafa war a jeex mhm. nañu bàyyi gox bi tànnal seen bopp mhm. moo tax loolu nag daf ñu jaral lu nekk nag mhm. parce que tamit dootuñu nangu mukk nit nekk ci kaw naan man maa leen ni tànnal maire ma ci vraiment euh, di wax ne euh, di interpeller le président Macky Sall bien vrai que mooy suñu président ñun ñëpp waaye dafa defoon benn déclaration ci jamono yële passé wax waa base bi toog leen ma tànnal leen. Mhm. bu ma waree tànn bu ñu waree tànn dinaa leen tànnal ki nga xamee ne moo fa war a nekk. Mhm. man aussi vraiment euh, ànduma ci. Mhm. parce que man mënu ma wax wax ne. moom xam na li nga xamee ne moo xew ci base bi. Mm -hmm. donc kon moom muy président Macky Sall muy président Sonko ak keneen keneen na ñu bàyyi base bi tàllal seen bopp. Mm pendant ce temps gis nañ coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñoo ngi nas ay pexe pour mën a gagner maire yi bëri. Eh, coalition benn Bokk Yaakaar ñoom ba léegi kenn déggu leen ci parti LD Yeesal ñoom ñoo la tànnal sa bopp wala da ngaa jóg sa propre volonté ni danga bëgg a jël. waaw ba tey ba tey parti bi nga xam ne moom moo ma nekk waxuñu ne yow la ñuy investir ci au niveau de Yeumbeul Nord. Mhm. parce que man aussi tamit lu may wax dama koy maîtriser. parce mhm. que je suis euh, un membre. Mhm. du comité directeur. tey fi nga xamee ne fa la ñuy nosee fa la ñuy noccee fa laa bokk. Mm-hmm. waaye man ay dara mm-hmm. maa taxawal sam bopp. ne parti bi su ma gungee. Mhm. élection locale fu ñu jëm. Mhm. damay dem ak sam bopp. mais lépp ci waxtaan ngeen ko war a def en tant que formation politique da ngeen ko waroon waxtaanee waroo jóg sa propre guerre rek. ñu ngi koy waxtaanee waaw ba ci cappaandaw ga. Mhm. ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ko lancé. dañ ko ko. parce que ñun tamit ku xam LDR Yeesal. ne parti bu mag la ñu yore. lépp luy président bi di tëgg. da koy waxtaan ak ñi nga xamee ne ñoom la ko seqal ba pare. ñu ngi koy waxtaanee. ba nii may wax ak yow. Mhm. ñu ngi koy di waxtaanee. waaye tamit teewul ne aussi tamit ba tey dañuy naan dañuy toog di leen xaar ñoom. Mhm. donc xëy na ñun jël nañ suñuy euh, devant. Mhm. pour wax ne ëllëg fépp fuñ ci toll moom. incha allah rabbi bi euh, dem ak ñun suñ bopp. Euh, LDSR bu amee beneen euh, candidat bu bokkul ak yow léegi nooy def wala wala yëmbal amul. beneen candidat bu bokk ak yëmbal nord yëmbal nord benn président moo fa nekk. Mhm. yàlla jàppale nañu ñun suñu commune amul benn tendance bu fa am. Mhm. benn président moo fa nekk muy man. Mhm. et je pense que ñi nga xamee ne ñoo nekk ci section bi ñëpp. dañoo porter sama choix ci man. ba tax ne tey aussi tamit suñu toogee fii di wax tamit ñuy wax aussi daf ñu wóor. Mhm. kon amul benn tendance boo xamee ne tey mën nañu wax ne ci LDR Yeesal li mën na am na. élection locale yi euh, waa caisse de dépôt et de consignation ubbi nañu dépôt koppar yi ngir mën a bokk ci élection locale yi ci benn fan ci weeru octobre bi ñu génn ci fanweeri fan la ñuy tëj li ni mel fukki million juróomi teew na wala. waaw fukki million ak juróomi euh, ñi ngi koy xaar parce que tamit tey lu ma la wax sànq dañu nekk ci parti. Mhm. parce que tey aussi lu ñu gënal. Mhm. mooy bu ñuy dem ci parti li ñuy demee. Mhm. parce que tey ñun LDR Yeesal man dama bokk ci membre fondateur. Mhm. du parti. te tey bu ñu sañoon tamit suñu parti. nu ñuy waxee président fala Darou Moussi. di ko waxee Kébémer ñu koy waxee Jëmbal Nord. comme ni nga ko waxee nag ibbi nañ euh, ñi ngi xaar waaye am nañ yaakaar ne fii ak ay fan da ngeen dégg ne suñu parti mm. déposé nañ. seen caution. Mhm, àpp gi ba ba bëri na wala bëri. non xam nga ibbi nañ ko. Mhm. le premier lañ ko ibbi. Mhm. bala trente. waaye délai bi ndaw na wala ndaw. non délai bi baax na. parce que tamit tey aussi kuy dem élection wax nga mën a fagaru tamit parce que doo xaar ba ñu ne ibbi nañ. nga mu nga war a xool yan pexe nga war a def ba mën a dem tey déposer. waaye tey man jàpp naa ne ñun fu ñu toll pare nañ. pour dem pare nañ aussi tamit pour joxe. suñu caution ci ni ngay demee par exemple ci élection locale yi ànd ci wala ak ni nga demee volontairement est-ce que du am jeexintal ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci ànd bi. waaw gëw ma ko gëw ma ko parce que tamit xam nga tey bu ñu sañoon fépp foo xamee ne coalition. coalition bi ñu ngi ci dañuy ànd mhm. parce que le président Macky Sall loolu la bëgg mhm. ne fépp foo xamee ne coalition mi ngi fa nañu ànd waaye tamit dafa fekk ne aussi tamit am na ay zones yoo xamee ne mënuñu ànd ak coalition bi xëy na euh, yëmbal noor rek moom laay wax. mais mhm. tey bëri na ay communes yoo xam ne tey boo fa duggee am na ñoo xam ne du ñu ànd ak coalition bi. Mhm. parce tamit xëy na Macky Sall moom lañu fal président Macky Sall moom lañu fal ci kaw. Mhm. waaye ñun ñi nga xamee ne ñooy dund ci base bi tamit xam nañ. aussi tamit jafe-jafe base bi. te taxawaay boobu nag moom lañu am. pour le changement. Mhm. liste électorale provisoire yi publier nañ ko maanaam ñu bind woon ci révision liste électorale ñeel élection locale yi ca yëmbal naka la tëddee est-ce que am na ay quelques illégalités euh, ni ñu koy waxee sax ay quelques sooxe yi ci am ñi nga xam ne bind woon nañ bañ bindee fësalee liste yi gisuñ seen tur. waaw am na parce que tey ñun aussi au niveau de la commission d'inscription yàlla dafa def ne. amoon nañ ndaw bi nga xamee ne moo fa jotoon teew. Mhm. bon démb jot nañ gisee. Mhm. waxtaan nañ. Mhm. te effectivement am nañ commencé nañ am ay ñoo xamee ne ñu ngi réclamé wu. ñoo xamee ne bindi woon nañ. mais bu ñu demee gis ñu seen waaye euh, au niveau de la sous préfecture aussi tamit. xëy na ñi nga xamee ne ñoom ñoo fa nekkoon teewal fa commission bi tamit. ñi ngi am ay jéego yoo xamee ne ñi ngi koy def mhm. ba mën a xool aussi tamit saafara nu mu fay mën a amee mhm. mais quand même tamit ñi ngi rafetlu aussi bindu bi parce que mhm. gis nañ ne aussi tamit nit ñi génn nañu en masse lu mosul am man de depuis bu ma commencé dund élection ba tey gisuma fan yi passé li nga xamee ne moo am ci commission yi parce que boo seetloo lu tax ma ne tey élection locale enjeu dafa am ay enjeu parce que tey boo gisee jeunesse bi. ñu jugee ba ci dernier jour bi. am na ñu bëri ñoo xamee ne jotuñu woon tamit. Mhm. bindu tey. Mhm. parce que sénégalais dafa bëgg dernière heure. Mhm. waaye taxawaay bi nga xamee ne moom la ndaw ñi am surtout. jigéen ñi am. dafa wane tamit tamit bindu bi tamit. am na fi solo bu baax a baax baax. bat ñu euh, daanaka li des ci waxtu bi bëriwul ñaari simili képp moo ci des ñu tënk ko ci parti LD lan mooy actualité bi ci parti bi. waaw actualité bi ci parti bi mooy comme lu ma wax léegi euh, tournée bi nga xamee ne le président mu Madiagne Fada def na ko ci fan yi passé mhm. tournée agricole bi waaye nag da ci profité waale dem seeti waaw mais tamit pour Sonacos mais tamit profité waale na si dem seeti militant mi mhm. parce que tamit tey aussi da ko def ci Sénégal lépp mhm. moo tax profité waale na vraiment dem seeti militant ak responsable LDR Yessal yu Sénégal yëpp parce que tamit tey ku xam parti LDR Yessal xam ne c'est un très grand parti Mhm. parce que tey mën nañu wax ne quarante cinq départements mhm. yu nekk ci Sénégal quarante six départements mhm. yu nekk ci Sénégal yëpp tey am nañ fa ay représentants cinq cent cinquante communes yu nekk ci Sénégal yëpp tey commune boo dem ak lu mu sori sori am nañ fa représentant day wane tamit ne notre parti est un parti très fort. maanaam da ngeen di structurer seen parti bi. merci beaucoup. Mhm. donc commencé nañ renouvellement yi y a de un an. Mhm. donc base yi base yi ta base yi base bi tamit aussi tamit. Mhm. ñi nga xamee ne ñoo fa nekk aussi tamit ñi ngi liggéeyal. Euh, parti bi xam naa ne du ñàkk ne fii ak euh, ay fan. wala fi ak ay semaine da ngeen dégg président Madiagne Fada le président mu Madiagne fana mu wax si. Mhm, moom sax euh, am gi defoon na benn sortie di sàkku sax euh, ñu faree ci coalition benn bokk yaakaar ñu boole seen doole bu ñu bëggee daan ko jéggi. <laughs> waaw loolu loolu c'est normal parce que tey aussi moom président Modou Diagne Fada mënul bokk ci parti. Mhm. ba pare bokk ci coalition ba pare génn di wax leneen. Mhm. loolu nekkul euh, loo xamee ne lu sérieux la. tey. dafa bokk ci ñi nga xamee ne dañu fal le président Macky Sall. kon tey dafa am lu ko Macky Sall dénk muy liggéeyal Sénégal. tey je fu muy waxee tey mooy ñi nga xamee ne ñoo nekk ci coalition bi nañu ànd nekk benn parce que mhm. gis nañ division bi nga xamee ne moo am mhm. surtout au sein de l'APR même mhm. moo tax tey ña waxul rek ñi nga xamee ne ñoo nekk ci coalition mais au sein de l'APR tey da leen wax ne tey ànd leen ngeen nekk benn parce que tey loolu xëy na peut-être pour taxawaayu Macky Sall président Macky Sall gën a dëgër waaye aussi tamit loolu aussi tamit bokkul aussi tamit ak li nga xamee ne tamit moo am ci yenn zone yi aussi tamit. parce que hmm. ñàkkul ne wax naa ko sànq yenn zone tamit jaxasoo hmm. jaxasoo tamit dafa am. Hmm. tamit dëgg bëggoon nañ àddu ci actualité bi mais waxtu bi moo ñu njëtt Ndary Aidara di candidat à la mairie de Yeumbeul bokk ci parti LD Yeesal ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeur rajo réew mi FM 97.5. waaw may jaajëfal auditeur ak auditrice yu Rewmi FM yëpp. Mhm. vraiment di rafetlu émission bi. Mhm. Euh, ci dalal bi nga xamee ne moom ngeen ma dalal aussi. di mhm. profité wàllu aussi di nuyu toute la section LDR Yeesal. bu Yeumbeul Nord. rawatina nag la coalition bi nga xamee ne tey ñoo porté seen candidature ci man. di nuyu aussi tamit la jeunesse de Yeumbeul. en tant que jeune aussi di leen ñaaxaat aussi. ñu gën a am taxawaay ci seen dëkk. di wax ne aussi tamit élection locale yaa ngi ñëw. waaye may ñaan non violence. parce que tey ñoo bokk dëkk bi dañuy nekkat. Mhm. kon képp koo xamee ne yaa ngi jàppale sa candidat nañ ko jàppale ci jàmm ak salaam. yàlla ku mu may ndam ëllëg aussi ñu jàppale ko. Mhm. donc di profité waale tamit di nuyuwaale le réseau ànd doole ndëri. Mhm. nekk benn réseau des femmes boo xamee ne tey dañu am taxawaay bu am solo ci biir yëmbal. taxawaay boo xamee ne tey aussi tamit ñi ngi jàppale tamit askanu yëmbal rawatina nag jigéen ñi. ak ndaw ñi. jërëjëf Ndari dara di candidat à la mairie de yëmbal nekkoon na ganu émission gox bi ci rajo réew mi FM 97.5 ki fare woon ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi Adama Diallo émission bi mën ngeen ko déglu altine bu 19h jotee jàpp 20 di leen jox di daje dimanche bi ñu dëgmal ak beneen gan ci seen émission gox bi ci rajo réew mi FM 97.5 jërë ngeen jëf.